وجهت وجهي ذا قرب من الله بجاي أحمد ذا سوق إلى الله الله أكبر مما كنت أفعله ولست أخسى ولا أرجو سوى الله mbokk yi seetaan seen télévision MK TV di télévision bu mag bi nga xam ne moo nekk ci grande mosquée de Touba di leen indil mbooleem xew-xew yi nga xam ne moo nekk ci mooy xew ci biir jumaay Touba dellusiwaat nañu ak yéen di leen nuyu fii ci barab bu tedd bii di jumaay Touba. dellusiwaat ak yéen ci suñu émission bu mag boobu nga xam ne moom lañ tuddee nemmeeku di émission boo xam ne euh, li ko tax a jóg mooy nemmeeku barab yi nga xam ne dafa am taarix ci yoonu murit gën koo leeral nit ñi waaye itam gën a euh, fësal jeexital yi nga xam ne moo nekk ci barab boobu. tey nag suñu ñeenteelu numéro ci seen émission nemmeeku ñu ngi fii ci barab bu tedd bii ci ñu koy wax Daaray Kamil Maktabatu Cheikhul Khadim di daaray kaamil di kàgg goo xamante ni ci la ñu dajale mboolem téere yi nga xamante ni moo aju ci yoonu waaye wala téere yi nga xamante ni sax moo aju ci lislaam tàmbale ko ci alquranul karim hadis yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak mbooleem yi nga xamante ni mooy téere yi nga xam ne moo jëm ci fiq wala tawxid wala tasawuf wala téere yi nga xamante ni sax mbind mag la kon barab bu tedd bii di maktabatu cheikhul xadim di daaray kaamil moom lañ fas yéene waxtaane tey du ñu def lu dul kon tab bi ci biir euh, daje ak ki nga xamante ni mooy conservateur directeur bi nga xam ne moom la ñu dénk barab bi di Serigne Amdou Moustapha Diatara ñu war a waxtaan ak moom ci solos barab bi ak li barab bi lu làmboo kon ci kanam tuuti ñu dugg ci biir fekk fi Serigne Amdou Moustapha Diatara kon topp leen ñu ci seen émission nemmeeku fii ci Daaray Kamil suñu ñeenteelu numéro. zikri wa sukri wa rirwaani wa mahmadati bil qalbi wal jismi wal aqlaami lillahi كلي لو جل في سر وفي علن ولست أسأل خير النبي الله kon mbokk yi comme ni leen ko waxee woon ci ubbite bi tey suñu ñeenteelu numéro ci seen émission bi ñuy wax nemmeeku nga xam ne li ko tax a jóg mooy nemmeeku ay barab yoo xam ne dafa am taarix ci yoonu murit ngir mbokk yi gën a xam solos barab bi jeexital yi nga xam ne moo nekk ci barab boobu tey nag niñ leen ko waxe woon su ñeenteelu numéro bi ñu ngi ci barab bu tedd bii nga xam ne moo nekk ci penku jumaay tuuba ñu koy wax mag tabatu cheikhul xadim ñu gën koo xam ci daare kaamil barab boobu nga xam ne kaggu la goo xam dañ faa dajale ay téere yu baree baree bari ci mbind yu wuute tàmbalee ko ci alquranul karim tàmbalee ko ci hadis eh, bi waaye itam tàmbalee ko ci mbooleem téere yi nga xam ne dafay wax ci wàllu fiq wala wàllu tawxiid wa fànn yu baree bari ba ci wàllu tasawuf ba ci téere yi nga xam ne Cheikhul Khadim moo ko bind ak ñenn ci mag yi yoonu muruj wi muy kàggu googu tey moom lañ fa yéenee waxtaane war cee dalal nag koo xam ne boroom xam-xam la gëstukat la doomi dëkk bi la doomi yoon wi la muy Serigne Hamdi Moustapha Diatara moom bàyyi Serigne Diatara al imam moom lañ war a àndal tey moom lañ fekk si fii ci daaray kaamil war a waxtaane barab bii moom nag mooy conservateur bi nga xam ne moom lañ dénk barab bi euh, ngir mu saytu ko kon sëñ Amdi Moustapha moom la ñu war a seqal waxtaan wi kon am di gannaaw bi ñu la nuyoo ñu bàyyi la rek nga nuyu ak mbokku téléspectateurs yi ñoo doogu sooba ci waxtaan wi aouzu billahi min asheytaani irrajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني أخواتي المشاهدون في كل مكان نحييكم من مكتبة الشيخ الخديم في مدينة توبة وسنتحدث معكم إن شاء الله عن تاريخ هذه المكتبة تاريخ إنشائها ومحتوياتها وما يتضمن من بعض النشاطات التي نقوم تقوم بها نقوم بها في هذه المكتبة النشاطات السنوية والشهرية والموسمية وسنحاول إن شاء الله قدر الإمكان أن نتحدث معكم حول جميع النشاطات وجميع الأشياء التي نقوم بها في هذه المكتبة إن شاء الله mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñooy leen di nuyu di leen siyaar yéen ñi jàkkaarloo ñun fi ak fu mën nekk ci weer wu màgg wu tedd yi nga xam ne ci lañu nekk muy shahru rajab ñu nekk ci fan yu mujj yi incha allah ñaan yàlla subhaanahu wa taala yàlla may nu nu fekk nu am yoolu lépp loo xam ne suñu borom subhaanahu wa taala digle na ko digle na ko ci rajab ak màggaayu rajab di weeru màgg bokk ci yi gën a màgg ci weer yi bokk ci ashurul xurum weer yi di ko tuddee ar rajabul fard weeru màgg woo xam ne ba lislaam di ko guddit dañ koo màggaloon bi lislaam dikkiit mu gën a màgg Euh, ni ko bokk yi sàkkoo ci ñun muy euh, bëgg waxtaan ci tuuti ci maktabatu Cheikh Al Khadim maanaam bibliothèque bi nga xam ne mooy euh, bibliothèque u Serigne Touba bi nekk ci jàkkaarloo ak jumaa ji nu fas yéene waxtaan ci tuuti ci taarixam histoire am kañ lañu ko sos ku ko sos lu waral mu sos ko euh, xam ngeen ne sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu dafa nekkoon koo xam ni bokkoon na ci li gën a nekk ay bëgg-bëggam mooy xam-xam daanaka dangay ngay mën a wax ni dundam gépp xam-xam la ndax dundam gépp dafa yor xalimaam di bind te buñ ne bind rek nee nañ xam mu nekkoon it koo xam ni yàlla daf ko bëggloo woon téere al kutub bëgg gum bëggoon téere moo ko boole ak ulama yu bari sunu mbokki mauritanien yi ngeen gis nii sëriñ bi bëggoon leen lool fonk leen ba nga xam ne daanaka naar yi ñoom seen bopp dañuy wax ne ñoom am na ci ñoo xam ne bi ñuy juddoo rek lañ xam turu sëñ Touba ba dañoo jàppoon ne ñoom sëñ Touba Mauritanie la dëkk ngir miin gu miin seen i waajur di ci waxtaan ak ñoom ak tudd guñ koy tudd bañ jàppoon ne moom Mauritanie la dëkk dëgg la tubaab yi ñoo ko fa waaye dem na ba egg ak ñoom ci ay jaxasoo ba seen diggante seen ak moom jaxasoo jaxasoo ba nga xam sax jaxasoo gune am na ci waaye la ca la ko gën a gën a indi moo di sëñ bi dafa bëggoon téere lool te yooye jamono naar yi yàlla dogal ñoo fi daan indi téere yi fii di ko jëlee foofu di ko indi ci sunu réew mi ndax ñun sunu réew mi booba xam-xam bi tasaaroogul noonu téere bareegu fi ñoom ci seen bopp ñoo daan bind di ko indi téere yi war a bàyyi ko maghrib wala yu bari ko charq yu ci ëpp ci ñoom la daan jaar door egsi loolu nag moo waral sëriñ bi ci boppam taxawoon ak ñoom lool taxaw gi sax fa teel ndax ba muy nekk Mbàkke ci kër Mamoor Anta Sali ci daara ji di jàng booba la digganteem ak ñoom tàmbali ndax dañ daan jaay si seeni marchandise di ca boole di indaale ay téere di ko jaay téere yooyee bokk na ci li gën a boole seen diggante téere bi mu njëkk am ñoom ñoo ko jaay euh, ba bi nga xamee ne dem na Mauritanie euh, mu amoon mébétu ñetti mébétam yooyu nga xam ne ñoo gënoon rëy ci ay mébétam muy tabax jumaa ji amal daara ci biir Touba amal fii itam kaggu goo xam ne lépp lu nit soxlaati ci wàllu xam-xam boo dikkee fekk ko fa yooyu bokkoon na ci ay mématam yi nga xam ne mématam yu yu ko ñoroon la loo yoo xam ne moom naka jekk mi ngi ànd ak moom ba bi mu nekkee Mauritanie la digaloon maam Thierno Birahim radiyallahu anhu ne ko wutal ma ko maanaam borom xam-xam yi nekk ci biir Mauritanie yëpp ku ne fànn gi nga xam ne moom nga gën a mën ñii ay fuqahaa lañ ñii ay udaba lañ ñii ay mutasawifoon lañ ñii ay luxawi ku rek fànn gi nga xam ne moom nga gën a xam nañ fexe ba kenn ku ne fànn gi nga xam nga bindal ma ci xaayima boo xam ne la nga xam ci ay téere lépp na ma ko ci bindal ñii nekk ay fuqahaa bindal ko lañ xam ci téere yi fiq yi nekk ci ay udaba bindal ko lañ xam ci adab lañ ci xam lépp ñi nekk ay mutasawifun bindal ko lañ xam ci tasawuf ñi ku ne rek la nga xam ñi xam taarix ah, ñi xam luxa ñu ku rek la nga xam bindal ko xawaayam yooyu nag ba mu dajee ba mu gis ko téere mu jox ko maam Thierno Birahim ne ko wutal ma koo xam ne boroom xam la mu fexe ba téere yi nga xam ne amut fi mu demal ma ci réew penku yi jënd li ma ko maam Cerno Birahim tànn ku ñuy wax Muhammad maa xamatu dakkante loolu nu mu deme waaye moom la tànn mu dem jëndali ko téere yooyu sëñ bi jox ko xaalis ba ci war bépp ak lañ ko war a jëndee lépp mu dem misra ak ci réew yooyu nga xam ne fa la téere gën a bare ñu jëndal ko téere yi nga xam ne moo nekkoon ca euh, këyit yooyu téere yooyu jënd nañ ko ba dellu ba andi ko histoire ba dafa gudd waaye jënd nañ téere yooyu ba andi ko Mauritanie ba sëñ bi gis ko waaye lañoo wax ne téere yooyu bi nga dem na bi bi ñibbisiwaat andi na ko bëgg uh, njaarim gi nga xam ne boobu lim bëggoon mooy bu egsee da koy def lu mel ni nii ñu def maktaba bi tey loolee la bëggoon bu ko defee daara ji mu bëgg def fii ci Touba lëkkaloo ak Euh, kàggu googu maanaam bibliothèque boobu nga xam ne lu nit soxlaati ci wàllu xam-xam wala téere rek dootoo ko jëgaani fenn dootoo ko wuti fenn. waaw kay jërëjëf sëñ di ci nuyoo bu am solo bi nga xamante ni nuyoo nga ko comme ñu ko waxee rek dañuy sóobu ci waxtaan wi xam naa suñu laaj bu njëkk mooy barab bi ñuy wax daaray kaamil di maktabatu cheikhul xadim bëggoon nañoo xam yan jamono lañ ko sos ak kan ci xilaafa kan ci njabootu Seexul Xadim gi ci lañ ko sos sëñ Amdi loolu nag moo waral <clears throat> biñ demee ba 1977 sëñ Abdul Ahad radiallahu anhu yal na ko yàlla fayal di lool di koo xam ne yàlla da ko euh, dañ ko faggul léppam xam ne bi muy ñëw ci àdduna sëñ bi dafa ne am naa ci moom yaakaar te yaakaar Sëriñ Tuubaa du mu bokk ci ay masruwaatam yi gën a am solo muy taxawal bibliothèque bi waaw tabax ko ci 1977 équipé ko def fi téere yi nga xam ne musuñu ko musutoon a yomb yu ci gën bari yëpp ñu jëndee ji yi Égypte lañ ko jëndee yi Arabie Saoudite lañ ko jëndee yi Maroc lañ ko jëndee yi feneen lañ ko jëndee ak yi nga xam ne nag mooy téere yi nga xam ne fii lañ ko defaree mm, yónni ndaw yu mat ndaw ku mel ni El Hadj Modou Mamoun Niang yàlla na ko yàlla dolli leer muy jàmbaar lool eh, téere yooyu yëpp tabarakallahu mu jënd ko mu nekk ay tonnes. ci fànn gune nag fànn gune jënd nañ ci ay téere salaaw fànn waxuma la fànn euh, alfununu diiniye wala ulumu diiniye waaw dama koo jëlale yooyu moom macha allah lépp bu dee tafsir bu dee quran bu dee ulumul quran bu dee lu mu doon ci yooyu rek mi ngi fi bu dee fiq bu dee mazahibul arab lépp loo xam ne téere la bu ñuy jàng macha allah am na fi waaw waaye yëmut ci yooyu rek mboolem li nga xam ne mooy euh, xam-xam teñ di ko jàng muy ulumul asri yëpp daanaka am na fi ba egg na ci damay wax ne euh, nu ñuy toggee jigéen ji bu jàngee bu demee ci waajam nu muy toggee plat bi muy togg sax téere bu ko koy jàngal am na ci biir fi waaw fànnu tabax am na ci biir maktaba bi Euh, lépp loo xam ne fànn la gu am solo te nit di ko aajowoo rek bari na fi am na fi téere yi tey du doon benn téere du doon ñaar waaye da ciy jënd ab lim boo xam ne am na ci yoo ay trois cent treize la ciy jënd ay lim yu mel noonu lay jënd lim yooyu nga xam ne ay lim yu am solo la da koy faral di ko jënd loolu nag euh, bi mu ko defee defu ko da koo def ngir liggéeyale ko Sëñ Tuubaa ak eggali yéeneem ndax loolu bokkoon na ci yéeneem tabax jumaa ji amal fi kàggu waaye tabax fi daara joo xam ni képp ku jógati di wut xam-xam boo dikkee mën nga fee yem la nga soxla lépp da nga ko fekk loolu bokkoon na ci ay mébétam e mu tàmbale woon ci jëmmam jooju mu fondation université bi boole ko ak daara ji yàlla dogal daara ji egg ci ak dundam waaye université bi yàlla dogal moom eggutoon ci ak dundam waaye nag so waaye nag tàmbali na ko ba mu muy dox ba jaar ci xalifa yëpp kenn ku ne def ci dara yi ko waaye bi mu egsee nag ci xalifa bu tedd bi fi nekk tey jii di Cheikh Mouhamadul Mountakha hafizahu llahu wa raahu wa ayyadahu wa nasara mu jóg nag def ko moom priorité awlawiyaam li nga xam ne moo jiitu ci lim njëkk waral liggéeyal sëñ Tuubaa ci xilaafa waa kay jërëjëf am di ci leeral gu am solo gi nga xam ne leeral nga ko ci euh, sosu daaray kaamil ak li nga xamante ni dëgg-dëgg mooy tax sëriñ bi sosoon ko tàmbalee ko ci Cheikhul Khadim ci boppam ci naal gum yéene gum amoon yéene yi Euh, sos ak kaggu waaye itam diggum diggoon taalibe murid yi ci ne nañ jéem sàkku ji xam lépp lu aju ci mu taalifal leen ay téere dana ko def kon loola war naa am barab boo xam ne ku soxlaa ca yooya mbind war na ko faa fekk kon muy loo xam ne lu am njariñ la waaye itam ñu bëggoon a xam dëgg-dëgg Cheikh mi nga xamante ni mooy ñetteelu xalifaam mi nga xam ne ci ak xilaafaam ci ci la daari kaamil ji sosoo ñu bëggoon a xam moom loolu lan ban objectif ban hëdëf la amoon ba tax mu euh, sos am yéeney naal daare kamil jooju ak ñan la ci àndaloon ci yoonu murit te yu bare bare bare yu xam-xam yi ummahatul kutub wal masaadir yooyu ci bare bare dafa exhibition Sénégal ci jamono waaw loolu nag moo taxoon mu bëgg téere yooyu ci bare bare boo demee ci Daaru Xudus gi tey ci matxaf boobu fi nekk xanaa ay Euh, asaari sëriñ bi rek moo fa ne euh, maanaam euh, da nga fa gis ci téere ay téere loo xam ne am na bokk yoo xam ne dajale woon nañ ko ku mel ni sëñ Moustapha Diop kokki moomu joxoon nañ ko ko mu dajale fa téere yi nga xam ne moom la fa jot a gis waaye boo gisee téere yi ci yow ci sa bopp da xam ne sëñ bii téere yoo xam ne ba fi may waxee ak yow sax ñu bare bare bare bare musuñ koo gis waaw yoo xam ne moom ba fi may wax yow ñu bari xamuñu ko ma nga fa loolu lépp day wane ne ittiwoo gu sëñ bi ñuy yàgg ittiwoo euh, mbirum téere yi ndax téere ak xam-xam dañoo mënut a teqali ko waaw téere ak xam-xam mu ne su am am xam-xam te amoo téere waaw foofu nga am ay téere euh, dégg naa Sëriñ Mbàkke Bousso radiyallahu anhu bi muy dem di euh, demoon dëkk bi ñuy wax Chérif Moulay ci wetu Tiwaawoon mosoon na faa nekk wax nañ ne neeñ boobu ay téeréem dafa lakk euh, ba téere yi lakkee nag te aalim moom bu amatutu téere moo euh, baykat bu amut gopp bu muy bayee ñooyam day jaaxle fekk nag kilifa ga nekk foofu dafa doonoon ab naaru faas boo xamante ne yàlla dogal na dafa bari téere lool daanaka la ne wax nañ ne la sabab ak demam fa mooy téereem yooyee ngir mu dem sotti ko am ko ngir mu amaat kàggu ga nga xam ne moom la amoon tam lakk xam ne daanaka lu mel noonu moo ko fi yóbbu ko loolu lépp day ittiwoogu sëñ bi ittiwoowoon téere ak ittiwoogu ñi àndoon ak moom it ñoom it ah, ittiwooguñ ko ittiwoo loolu nag euh, téere yooyu dafa lakk ci njaareem ci bare bare dafa lakk ba moo tax egsiwul Tuubaa waaye loolu tax na ba mboolem ñi fi bàyyi ñu bëggoon téere lañ man ñi ma ci jot a xam ne mu wax ci Daaru Xudoos noonu ma nga fa waaye boo demee ku mel ni sëñ Fallou radiyallahu anhu nga xam moom fekke naa ci moom lu bari loo xam moom koo fekke moom ci biir këram dafa amoon espèce u bibliothèque bu mag boo xam ne funoon yu bare bare ngi ci woon bare bari ci biir euh, baraag boobu Euh, giis gi nekk ci biir maktaba bi foofu la newoon ci biir xam ne téere yi jami al funun daanaka taqriban ma nga fa woon moom ci boppam it mu nekkoon ku bari bëgg téere ñu ngi ndokkal waa kër Cheikh Mouhamadul Fadil yëpp ci weeru tedd bi nga xam ne seen weer la di ci ndokkeelal murit yëpp di ci ndokkeelal jullit yëpp ñaari itam tàkkusaan nga fekk ko mu toog te yorut ab téere di jàng lu jafe la woon waaw da nga fekk suba teel ngi mu yor alxuraan di jàng waaye takkusaan ñaari moom da nga fekk moom mu yor tafsirul jalalayn wala nga fekk mu te yor téere fiq di ko jàng ma sama ànd ak sama waajur man mii mu di ko siyaare mu an ko ah, xam naa eh, eh, moom de tawfiq am na ci ndax nun ñii di mënutunoo jàng benn téere lu dul dañuy takk ay lunettes mun takku lunettes yii di fi duñ mën a gis dara te yow moom ba tey jii rek mu ne ko waaw ah, man de ba fii takk dara mën naa koy xool nii ma koy xool ba tey rek waaw xam ne allah yàlla ma na ko ci wet googu moom ku bëggoon bëggoon xam ku bëggoon yër la foofu yi ci biir jumaa ji itam eh, bi ñuy jàng foofu ci daarul maarif nga xam ne ñun man ma wax ne ñooy faw ji ba fa njëkk nekk eh, di fa jàng biñ ko ubbee biñ ko ubbee andi woon na fa ay téere yu bari andi woon na fa ay téere yu bare bari foofu yoo xam ne yu bari bari nekkoon na fa loolu itam mm, bokkoon na ci yëfa yëfa amoon kon loolu lépp day day day day rek fonk gu ñu fonk téere moom sëñ bi ci boppam ak njabootam gépp dem <coughs> ndax ñoom nit xam-xam lañ. waaw kay jërëjëf sëñ Amdi macha allah euh, leeral ji am na solo Cheikh borom vision la borom gis-gis la woon ba tax na gis nga ni ko élaboré nga xam ne moom fexe woon na ba am yéene ji waaye dox jëm ci def ay jéego mooy fexe ba dajale loolu téere yi lépp bépp jeexital boo xamante ni. nit yoroon na ko ci mbindum sëriñ bi mu fexe ba loola ñu jot ci yi ñu ci war a bindaat ñu bindaat ko àgg ba ci sax euh, yebal ay nit ci réewi naar yi fu mel ne Mauritanie ba ci Arabie Saoudite feneen ngir ñu mën a dajale foofu ay téere yoo xam dana mën a nekk ci kàggu gi ba muy téere yoo xamante ni lu lu ay diversité ci wàllu mbind lay doon yoo xam ne lu ci waaye soxla dana ko fa mën a fekk muy loo am amam solo waaye itam bëggoon nañoo xam dëgg-dëgg kon nag ginnaaw bi bi bi Cheikh ab Lahad amee xalaat bi dox jëm ci ba taxaw ba yi am yéene nag sos ko ba def ko ba noppi nag xam naa laaj bi ci topp mooy bëggoon nañoo xam dëgg-dëgg nag euh, xeeti téere yi nga xam ne nag moo nekk ci daari kaamil ndax xam nañ ne bari na ay étudiants ñuy def sax ay thèse di ñëw di di di di gëstu si ci mbindum sëriñ bi ak jaar-jaanu yoon murit te amuñu fenn fu ñu ko mën a defee fu dul ci maktaba bii nga xamante ni moo fi nekk ci mbind yu wér léegi nag bëggoon nañoo xam yan yan yan anwaaul kutub xeeti téere yi fi nekk ak yan ci yan majaalaat la la la la téere yooyu di wax waaw bi ci noonu ko waxee dafa am ay aqsaam xismul awal nga xam ne boo demee euh, numéro salle numéro un lañ koy tuddee salle numéro un mooy salle bi nga xam ne quran rek moo fa ne alquran alquran al karim bi nga xam ne lépp loo xam ne mi ngi ay ci alquran yoo xam ne fii lañ ko bindee mbaa ñu bindee ko bitim réew ci saal boobu la nekk mooy saal bu njëkk lépp loo xam ne alquran la teñ jëndee ko bitim réew mbaa ñu bindee ko muy ay masaayif yoo xam ne ci loxo lañ ko bind ci saal boobu la nekk mooy raqam waaxid saal numéro deux mooy saal bi nga xam ne ci la muallafaati Cheikh al Xadim lim bind lim taalif mooy bi ngay jëkk a jot booy dugg rek sa ndeyjoor moom ngay jëkk a jot mooy saal numéro deux lépp xam ne waxuñ ne lépp lu sëñ bi bind foo loolu it ni ñi xam ko du lépp lu sëñ bi bind ñu ne ma nga ca mag tawa fa déedéet sëñ bi lim bind ba léegi at mu jot ñu gis lu yees waaw kon dajaleeguñu ko ba li sëñ Tuubaa bind mi ngi fi am nañu xër nag ñu koy wax euh, ba di ko wutal sax ay tonak ay ay ay yooyu waaye nun de loolu moom wax dëgg yàlla suñu xam-xam euh, maanaam daal gisaguñu ko xamaguñu ko xam naa daal at mu ne danañ gis lu yees ci lim bind waaw kon maanaam daal liñ jot a dajale si yëpp daal dajale ko moom ci li nga xam ne moom la bindi ci wàllu xam-xam moo xam olomu diini la moo xam li nga xam ne mooy xasaayid yi am daax yi salawaat yi yëpp mi ngi fi moom ci ci ci ci ci ci mag ci ci salle numéro deux boobu mboolem rosaayil yi nga xam ne moom lañ doon bindi ci moom li naar gànnaar yi bindi ci moom tagg ko li Sénégal yi bind ko mel sëñ Ibrahima Diop Machar sëñ Fallou sëñ Modou Moustapha ñeneen ñi ci yëpp liñ bind ci ñoom moom lépp mu ngi ci biir salle boobu nga xam ne mooy salle numéro deux euh, salle numéro trois nga xam ne mooy salle bi ñuy tuddee ak saqaafa al amma lépp loo xam ne ulum wàllu xam-xam la moo xam tafsir la moo xam kutubu yeneen yi des la moo xam fiq la moo xam tasawuf la moo xam sax ci yeneen fànn yi tarbiya wa taalim tibb wàllu médecine mm, wàllu histoire wàllu lépp lu aju ci wàllu li ñuy tuddee sax alfununul jamila nga xam ne daawut bari nit ñi di ko xam yooyu sax yu ci bëree bëri am na ci biir saal boobu nga xam ne moom lañ tuddee as-saqaafa al am daanaka moom tur wi rek làmboo na lépp culture général lépp lu bëgg nit bëgg ci wàllu culture général ci wàllu xam-xamu lislaam wala xam-xamu diine même ci wàllu xam-xamu télévision bii ngeen di jëfandikoo téere yi koy jàngale am na foofu ci mag am na ci biir ni ñuy jëfandikoo caméra yeeg ni ñuy jëfandikoo euh, kii yeeg ni ñu koy liggéeyee ni ñu koy defee yooyu yëpp booy dugg ci biir rek fi ngay jëkk a jot sa càmmoñ rek foofu loolu képp lu ci bëree bëree bëri mu ngi am na fa loolu dañoo bëgg a wane ne rek foofu moom lu bëree bari ci wàllu xam-xam am na fa euh, ba tey euh, ci euh, bokk na ci itam kon yooyu mën nañoo wax ne kon salle numéro un salle numéro deux salle numéro trois ak salle numéro quatre ndax fi nga xam ne fi la alxuraan ji nekk alxuraan dañ ko séddale ñaar fi nga xam ne yii dañ ko móol muy kaamil nga xam ne ahfaadu Cheikh al Xadim yi ñoo ko bind eh, nga xam ne ak ñi nga xam ne ay talibi sëriñ bi ak mag ñi masaahif yiñ bind yëpp ma nga foofu sëñ Abdou Latif anhu daara yi dañ eh, daan def ñu ko daan defee ci jamono Sëñ Tuubaa ku jàng alxuraan ba mokkal bind lool du suñu aada aada yi Afrique yoo xam ne aada ju am solo la yoo xam ne yàlla na yàlla dimbale nu ba mu wéy ndax aada la yoo xam ne ëpp naa bay am na ñoo xam ne dañoo dem ba fi mu ne nii xaw nañ ko sàggane waaye ak am solo jàng alxuraan mokkal ko bind kaamil moom day du aada ju ñu war a dagg de wala ñu war koo bay ndax li koy xamal mooy boo demee foofu xismu bi nga xam ne fa lañ denc téere yi nga xam ne ku mos a mokkal alxuraan bind kaamil jox ko seen blaat ci jamonoom dañ ko wutal xismu boppam spécial boo xam ne maanaam képp ku mos a bind kaamil jox ko rek boo fa demee fekk fa sa kaamil identifié nañ ko itam ba nga xam ne euh, da da nga boo egsee am na xaayima boo xam ne asmaul Koutab ñoo ca ne mboolem ñi bind kenn ku ci nekk boo egsee boo xoolee da nga gis sutur euh, daare kaamil moom làmb na ay téere yu baree baree baree bare ñu ma ko waxoon ci njëlbéen gi tàmbalee ko ci alquranul karim fiq tawxiid tasawuf euh, comme ni ko sëriñ bi euh, waxe ci yiñ war a jiital ci njàng yëpp ma nga ca waaye itam mbooleem téere borom xam-xam yi wala diiwaan yi nga xamante ni ay ay ay waykat ay bindkat ñoo ko woy Euh, wala sax ay téere yoo xamante ni euh, Cheikh Abdoulaye ci boppam moo sàkk woon ci mag ñi fi nekkoon di ay boromi xam-xam di ay fóore di ay kaang ñu bind ko tey boo demee téere yi mag ñu baree baree bari seeni sët foofa lañ koy fekkaat ci euh, daari kaamil muy lu am solo macha allah léegi nag bëggoon xam au delà de téere yeeg yooyu bu weesoo téer yi nga xam ne moo nekk daari kaamil ndax am na yeneen i jumtukaay yeneen i jeexit yoo xamante ni mi ngi daari kaamil yuñ mën a yuñ yuñ mën a wax. saalu alxuraan bi dafa am espèce wu matxaf sëñ bi ku mën a fagu la ba muy xalaat musée yàgg na ndax <coughs> tey macha allah <coughs> Cheikh Mahamadou Muntaxa yàlla na ko yàlla na ko yàlla fayal digle nañ ñu taxawal musée ba sunu sëñ Sërif Mbàkke moom Cheikh Mahamadul yàlla na ko yàlla may kàttan ba mu eggale masoro boobu waaye tubaarakallaahu si yeblaat ci biir saal boobu dafa def espèce de musée bu ndaw matxaf musaxar waaye nag waaye xiima musaxaf bi eh, xiima ba foo ko takk rek na ko ndax mboolem bagage yi sëriñ bi ay lal ay ay ay ay ay ay ay gaal ay téere yoo xam ne yu ci bari ci moom la bàyyi ko woon ma nga fa yoo xam ne na ko daan tartibee na lañ ko tartibee di ko teg ci kaw lal nga xam ne moom ci suuf la daan tëdd di di di ci def alaaj ko lañ di ko tagg di tëdd ci suuf noonee mu ko defee woon rek lañ ko tegaatee noone la ko sëñ Abdou Lahad defee dara soppikuwu ci ba nga di sii noonee mu taxee woon rek la taxawee ba léegi kooku mat matxaf la espèce bu matxaf bu na bu bu mu saxar waaye kiima ba moom foo ko takk rek weesu na ko kon bagage yooyu moom moom itam bokk na ci li nekk ca biir barab boobu ak yenn feggu yi nga xam ne euh, sëñ Massamba ko daan bind di ci bind yenn xasaayis yi nga xam ne moom la yàlla defal sëriñ bi yooyu itam yu ci bëree ñu ngi ko denc foofu foofa it du place boo xam ne moom ñu bëri dinañ fa dugg <coughs> ndax dañuy ragal nit ñi di fa dugg mën nañ faa da nga gis ñoo xam sax ànduñoo ak seen sago mën nañ faa dugg tàggoog seen sago yàq fa dara walla ñu def fa dara ba tax na ay personnalité rek yu nga xam ne moom xam nañ ne mën nañ faa dugg te sax lool bariwul lool foofu itam barab boobu mel noonu ma nga fa. ok jërëjëf am di macha allah ci laaj bu am solo boobu ndax xam nañ ne euh, saal yi bari na ci ni nga ko limee nii waaye nag bi ci ëpp gën a am solo mooy li taxoon a jóg maktaba bi mooy fexe ba ndaw ñi di ko jariñoo rawatina ñi nga xam ne ay étudiants lañ di gëstu di jàng di gëstu ci wàllu xam-xam te gis nañ ne loolu fis na bu baax a baax jamono yii ñu ngi koy jëfandikoo bu baax a baax léegi euh, salle de lecture boobu nga xam ne moom lañ jagleel ñi nga xam ne ñooy liir yéen nu ngeen ko nu ngeen ko aménager ak it ndax am na yéen a ngi recevoir ay étudiants ay xale yu jàng ndax di fa ñëw moo xam ay góor lañ moo xam ay jigéen ngir jariñoo euh, barab boobu nga xam ne mooy salle de bi. loolu nag léegi si léegi ubbi nañ ko ci képp koo xam ne ak koo mën a doon ak foo mën a bàyyi ko ak mustawa boo mën a am rek mën ngaa dikk ci waxtu yi nga xam ne bu moom la ubbi. muy lu tàmbalee huit heures ci suba ba daanaka six heures ci ngoon waaw téere boo soxla boo demee ci salle de bi moom macha allah la nga fa soxla lépp ma nga fa salle de lecture bu nga xam ne mu jaxasa tajhiizan kaamilan boo xam ne lépp loo soxla ak noo ko soxlaa ma nga amul benn charte bu ñu lay wax naan la lii taabal yéen koy fa nga koy jàngee macha allah euh, barab ba féex na féex yooyu woo xam ne mën nga faa toog <laughs> jàng loo bëgg a jàng loolu moom yaakaar naa gone yi nekk ci dëkk bi tey jii nekk ci université bi ak nekk ci yeneen université yi ci des ak ci maahid yeeg madaris yeeg majalis yeeg ñëpp tey jii léegi day fes dell ba nga xam ne danañ toog ba ay jamono yoo xam ne place du fa am ñu yombalal leen ko lépp la des léegi moo di ab le mu génn te loola it dafa am lu laaj moo tax xëy na eggaguñ ca eggaguñ ca ndax ab le dafa laaj yaara dafa am ay garanti yoo xam ne da koy am ndax xam ngeen ne fii sunu fii tey nun ñi nga xam ne <laughs> ay ndongoy daara lañu xam nañu ab le téere nu mu demee bari nañuy ñàkk téere ñoo xam ne la leen ko xañ mooy abale ko ndax gars yi eh, bari na ci ñoo xam ne ku leen amalub téere boole nañ ci ñàkk fulla dem di ko delloo am na ci ñoo xam ne eh, dañoo jàpp ne ab léb téere ba noppi ñu abalub téere nga delloo ko du fulla ndax di ko waral mooy téere daf leen a xaw a jafe dafa xaw a jafe rawatina téere bu baax boo xam ne da nga loolu nag dafa am ay charte ay ay foog ñu am sécurité bu leer ne téere bii kët surtout maktab bi dafa am téere yu nga xam dafa cher ba noppi raar lool amatul boo buñ jugoon tey jii yor xaalis demaat fañ ko jëndee woon bëggaat téere yooyu duñ ko am ñoom ñi nga xam ne ñooy ambassade Égypte dafay ñëw visité ba pare xool téere yi ba noppi daan ne ah téere yi di na ngeen ko waggar bu baax te téye ku mu xaafasa ko bu baax ndax fii ne bu ngeen demaatoon Égypte yor xaalis di ko jënd bëgg ko jënd du ngeen ko am amatul kon loolu day wone ne euh, loolu euh, jar na kon ñu ñu ñu ñu am ay garantie yu leer yoo xam ne ki ñuy jox téere bi buñ ko ko joxee dana wóor ne du yàqoo ci loxoom waaye dana ko mën a delloosi itam danañ xam itam euh, bu bu fekkee delloosiwu ko nan la ñuy def ba mën caa jotaat. akay jërëjëf macha allah kon mel na ne loolu moom. Euh, jiitu ngeen ci jamono ngir gën a yombal ñi nga xamante ni ñooy jëfandikoo daare kaamil ñooy euh, jariñoo téere yi nga xamante ni moom moo fi nekk waaye itam suñu beneen laaj bi ci topp ndax biir daare kaamil am na yeneen activités yu ñu fay def lu jëm ci wàllu culture yu dul yu dul rek xëy na liir walla yu mel noonu dégg loolu moom lañ daan def muy bu weeru jotee ñuy firi ba ñu demee ba mu yàgg lañ tàmbali di woo ay borom xam-xam ñuy ñëw di def ay ni ñuy tuddee ay conférence salle boobu jëkk boobu def nañ ko ci ba bataay ay yoon yoon yoon ba niñ toxee ci salle bee di ko def ba fi mu ne activité yooyu euh, nasatat ramadaniye macha allah moom booba lañ ko tàmbali yàgg na dama ko daa enregistré naa ci lu bari jox ko sëñ wu mu mu mu déglu ko laata mu fi jógee am na ci yoo xam ne moom déglu na ko moom ci boppam waaw ñi fi ñi ko ñi fi jëkk a def waxtaan enregistré naa ko dégtal ko moom moom loolu nag mu ngi continuer ba tey yemale wuñ ko ci léegi ci Ramadan rek ñu ngi koy def ay nasaataat yooyu ci saqaafi yoo xam ne bu ñuy jub màggal tubaa waajal màggal gi dañ koy def yi nga xam ne itam waajal eh, yeneen bis yu màgg yi nga xam ne moom la ñuy def ci biir dëkk bi yooyu yëpp itam saa bu amee fo occasion rek danañ def yu mel noonu ndax dañoo gis ne maktaba bi eh, nit ñi am na ñoo xam ne mën nañoo jàng fab téere yi di ko jàng waaye am na ñoo te sëñ ma ko waxee mbirum eh, xaa xaatul mutaalaa bi def ne ma ah waaw moom day ñaar ñaar ñaar a ñëw. ñoo xam ne mën nañoo jàng téere yi xamal ko seen bopp ak ñoo xam ne mënuñoo jàngee téere yi euh, te ñooñu it ñoo ñii ñoo ci yem képp dañ ko war a xam kon nañu fexe nga xam ne man moo ma digal firi gi may firi di ko jàngale nii di toog def ko du mel ni majalis boobu moo ma ko digaloon moom sëñ bii ci boppam moo ma ko digal ci moom laa jëlee woon xalaat bi. ok jërëjëf sëñ mu Moussa Diatara mel na ne xam naa li ñu cërale woon ci waxtu euh, mi ngi jëm ci jeex. jataay bi am na solo lool bëggoon nañ sax gën a guddal wax dëgg yàlla ndax euh, li ñu war a wax ci mbindum sëriñ bi ndax ku wax daare kaamil da nga tudd mbindum sëriñ bi danga wax yéen ji am sëriñ bi amoon ci tasaare xam-xam waaye itam fexe ba génération yu ñëw man koo jëriñoo loolu Euh, mën nañ koo jëlee ci tont yi nga xamante ni moom nga doon tontu xëy na waxtu wee gàtt waaye bëggoon nañoo gën a mën a guddal gën a mën a am jataay waaye du ñàkk beneen yoon euh, seen émission nemmeeku dana dellusiwaat ci yow bu ko defee mën a man a kii xam naa dañ lay jox rek kon nga euh, yëkkati kaddu yu mujj kàddu yi nga xamante ni moom ngay tàggoo. waaye daal noo ngi sant bu baax a baax baax baax ci loolu di ñaan yàlla sunu kilifa gu tàdd gi di Cheikh Mouhamadou Mountakha yàgg fi lool <clears throat> Eh, taxawaayam taxawaay la boo xam ne benn taxawaay mënu ko wecc ci wàllu xam-xam ndax université bi rek nga xam ne mooy awlawiyaam mooy lim njëkk xalaat ci àdduna ne moom moom la fa séenaa def te waxit fa mu bëgg mu egg ah wax naa ko barki de mu ne ko waaw da nga daan wax ñetti téeméer at waaye fii yaakaar naa sax du mat fanweeri yaakaaruma <laughs> ko yaakaar naa téeméer bu ne de dañ koy wàññi ba mu doon fukk wala mu gën a mu gën a néew sax fukki dana ko gën a néew waaw macha allah ak taxawaay bi mu taxawaay ci ñëpp yal na ko yàlla yàggal yàggal fi njabootu Sëñ Tuubaa gépp nag njaboot gépp yàlla yàggal leen fi wéral leen eggale seen yéene ñoom ñëpp ci darajey Cheikh Al Khadim darajey weer wi nu nekk muy réewu Rajab ah yéen nga xam ne suñuy <coughs> ñii suñuy doom lañu ñii suñuy jarbaat lañu ñii suñuy rakk lañ ngeen di liggéey ci jumaa ji liggéey bu rëy rëy boo xam ne benn liggéey mënu ko wut taxawaay bi ngeen ci taxaw ñëpp gis nañ ko ku ne gis na organisation bi ci am ak fawda bi fi amoon dañ na ba set wecc wala boog lu ci bari dañ na te loolu itam nag seen mbooloo mi di tax moo ñëw ci taxaw te war cee taxaw bu baax ndax seen i baay ak seen i maama fi newoon noo <clears throat> ngi ñaan yàlla subhaanahu wa taala ngeen gën a dëgër gën a eh, taxaw fan yi gën a gudd yaram yi wér ba li nga xam ne moom ngeen yéene nu yéene ko nun ñëpp yàlla eggale ko ndax nun ak yéen fii ci daare kaamil ji ak jumaa ji benn la noo bokk liggéey suñuy liggéey yëpp benn la fii lay jàngee fii lay jullee kon <laughs> wax dëgg yàlla benn benn lépp benn la liggéey benn la nu nit bokk gi benn la amul leneen dara ci teqali ko ju nekk suñu ku nekk foofu rek mbokk nga man ku nekk fii bokk nga ñun ñëpp ñoo bokk lépp lépp benn kon jërë ngeen jëf ñu ngi sant yooyu ñu sant ci farlu gi ak taxawaay bi gis nañ ko gis li nekk nekk gone liñ liñ la jox moom yaa ngi ciy góorgóorlu ndax man mii sonal nga ma lool <laughs> waaye loolu lépp ci góorgóor ci ci liñ la jox loolu nag mooy mooy mooy gis loolu lu am solo nit liñ la jox téye ko dëgër waaw xuzuuhu bi quwwatin waaw ndax loolu mooy doxal mbir waaw yooyu itam ñu ngi lay gërëm bu baax gis nañu sa taxawaay di gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf suñu am di Moustapha Diatara ci jataay bu am solo bi nga xamante ni moom nga séqoon ak MKTV ngir mën a waxtaane euh, daaray kaamil ci si émission bu am solo bi nga xamante ni mooy nemmeeku di jataay boo xamante ni bu am solo la boo xam ne mbokki tali bi nga xam ne dañ koy suivre danañ ci jariñu bu baax a baax danañ gën a xam solos daaray kaamil waaye taarix xam waaye li ko taxoon a jóg ak li nga xamante ni moom la daaray kaamil lamboo ak naka lañ koy mën a jariñoo jàpp naa ne jataay bu am solo la boo xam ne benn émission sax doyu ci waaye ay émission yi émission mën na cee génnewaat ngir li ci ballee ci xam-xam kon sëñ Amdi Moustapha Diatara ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di la sant di la gërëm di sant it mboolem yi nga xam ne ñoo ñu doon topp ci MK TV ci seen émission bi nemmeeku nekkoon suñu ñeenteelu numéro incha allah ñu ngi leen di jox dig daje fii fukki fan ak juróom ci yeneeni jataay waaye tam ci beneen barab boo xamante ni warees na koo mën a nemmeeku ci yoonu murit ngir mbokki talibe gën a xam jeexitali borom barab booba ak solos barab bi kon ñu ngi taxawlu foofu ba beneen yoon incha allah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma dumtu hayyan bi qawli وغاني أزر تكريما ووجه لي نفعا بلا سبب فالشكر لله